et ils avaient 24 heures en quelque sorte pour euh, euh, rétablir la situation. Euh, comme on a noté une augmentation encore plus considérable même des tarifs, qui sont passés presque du simple au triple. Donc nous avions tout simplement coordonné avec nos collègues ministres de l'Intérieur, ministres des Forces armées,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 nous a en tout cas dépanné avec euh, plusieurs chauffeurs euh, de l'armée et de la gendarmerie. Et que donc là, je pense que euh, les populations sont en train d'être soulagées. il y a des destinations vers toutes les régions. Et nous pensons que d'ici demain, avec le nombre de rotations, le nécessaire sera fait.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

depuis hier avec euh, la coopération et la collaboration euh, des ministres de l'intérieur et des forces armées nous avons fait le contrôle nécessaire pour que nous ñu les tarifs. respecter tarif contrôle est moo tax chauffeurs yu si bëri gaare seeni oto wala de dem Nous avons préparé un backup Dakar Dem ça fait pratiquement 72 heures nous mobiliser mobilisons les mu am ci flotte lépp lu chauffeur pour mener...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

ah déedéet parce que mën nañoo anglais non moom message yi tabaski lay wut quoi. donc waa bismillah ah dañuy dañuy dañuy ñaanal sénégalais yëpp rek ci tabaski jàmm di ñaanal sénégalais yi nekk fii ak sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew rawatina ca makkatal mu karam